li nga xamante ni idée la parce que waxtaan moom bu bu bu bu réunion amee am na fi ay boroom xel yu set yu sell yoo xam ni seen i wax day tegu ci temps ba pare day jaar ci yoon mais doo ñëw ci réunion ba pare xam nga am loo bëgg a wax ba dem ba ci biti di ko wax waaw ku ci bëgg a wax daal mën ngaa jël sa kàddu ñëw nañ ba pare jaratul yaakamti nañ jël suñu temps wax li ñu war a wax parce que lii du affaire caaxaan dañoo ñor daal dañoo dafa nekk loo xam ni maanaam ci sono xol lañ koy tuddee waaw ci sol xol lañ ci euh, tuddee dañoo bëgg Macky Sall bi nga xamante ni mooy le président de tous les sénégalais ñi nekk Sénégal ak ñi nekk France ak ñi nekk Australie ak ñi nekk États-Unis ak fépp mooy sunu président Macky mooy sunu président te waxante woon nag euh, euh, Tayyip Erdogan ba ñu am ñu ci may dañoo bëgg mu egg ba ci moom ne ko ñëpp partagé mu dem ci Macky Sall mu xam ni kat am na ay doom yoo xam ni biñ ñee dal leen may am na ñu fa des te mayegul leen te ñun boobu ba ñu ngi xaar du sunu ñàkk jom du sunu yaafus du sunu dara ndax li waroon a lépp def nañ ko mais turki yi dañoo nekk nit ñoo xam ni doo leen wax rek fàttali leen da leen di fàttali di leen fàttali ba pare di leen pressi sinon boo ralenti rek du la defal dara. dañuy kii naan seen cor ba pare. voilà salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp di siyaar tey bu caagin ni sax mënu ma wax ci mbooloo sa mais ñu wax li ñu wax yëpp vraiment gars yi ñëpp ci gàttal. dëgg la wax ji rafet na sell na. Mm-hmm. amul amul amul benn dépassement moom. dëgg la waaw dëgg la. ku ci ne jël nga jël nga sa temps wax wax ju rafet. yoo xam ne mhm. ku ko dégg di nga xam ne ñii li ñuy wax fi ñuy waxee seen xol lañ ko tibbee quoi. Mhm. vraiment maa ngi jéggalu nag xam nga ci xam nga jotaay bi nii. parce que man vraiment euh, euh, comme fa ma fa ma ne nii di liggéey. man maay moteur bi foofu noonu. mais damay bàyyi lépp tey ji teew ci réunion bi. ngir parce que lii daf ñu intéressé. Mhm. daf ñu ñor parce que lii faratal la quoi. képp koo xamante ni maanaam